mais que melokaan bi ma la gis nga andi ko ci làmb ja euh, suma ma yaa ngi sol vax jël lu weex lal ko ci bopp bi ñu bari avant ñu lay xàmmee dañ ne woon ki mooy sëriñu Balla Gaye bi mais bi nga tourné ñu ne ah kii de Père Diaw la melokaan boobu lan la woon dañ la koo digal wala dafa nekkoon loo sentiroon rek def ko. waaw xam nga maanaam ku yàgg ci njaw di njaw jamono bu ñuy dem làmb rawaan yi nu àndal ñoo nuy jox ay tegtal te keroog bu nit ñi xamoon ni kii jaw la riir mu bare dana gën a am ci stade bi ndax xam nañ ni xale yi may seen baay maa leen di xelal mais di fait que école du lutte Balla gay laa ne te géejaway jiital ma te ma war sol beneen kasket ma ñëw muuru rek méfié te muuru boobu bu ëllëgee mën naa am leneen laay sol damay wut kàngul la xaw ma yooyu ñuy takk danaa xool daal ay gestes yu may def ndax loolu buzz la kaala ga daal jig ne ma ndax am naa victoire ba nga laaj ma leneen. <laughs> ba nga laaj tey Père monument daal laa ko wax bii géej waay